déedéet loolu sax li ngay jàngale la ma déglu ma. pour se défendre. pour léegi. légitime défense amul. ci nañu question yi. question bi bu ñu bu leen déborder respecté leen. leen mbokk internet dama ne jaajëfal naa leen yéen internet yi seetaan maa leen di jaajëfal Dramé Kandji Socé jaajëfal naa la bu baax a baax a baax Cheikh Tidiane ni waatal ci sama question Euh, ci euh, li nga xamante ne mooy Barthélemy Diaz kàddu yi nga xam ne <laughs> yëkkati na ko ci affaire sacrifice hmm. affaire dërët yi nga xamante tey nee am na ci ay njiitul Pastef wala sax njiital parti yi nga xamante loolu lañ bëgg ci Dakar Ndiaye Jal Diop mais bu leen ko kenn may waaw tey ji <laughs> am nga am nga ku mel ni ku mel ni Bart hmm. sànq maa ngi koy bëgg prédire bi may wax noonu hmm. Bart fi ne nii dafa far nekk salben salbendom bu góor parce que loolu xam mooy li mu waxoon démb. Ablaye Ndiaye nee na nga bàyyi père bi. non père sama waay la. bàyyi père bi ah père bi maanaam turu père wala. bàyyi père non déedéet bàyyi man sama waay la man père mu père sama tere waay la. ah. sama dama koy bëggee sama sama sama kees la. Ah. <laughs> sama gaañ la père <laughs> père naanaan la. li ngi noonu <laughs> voilà. Mm. Euh, nu mu tudd mm-hmm. dafa wax démb lu am solo. muy lan. démb bi ko euh, Pam nga Ndiaye bi mu ko waxee ne ko. Mm-hmm. yéen ñu ngi xaar seen meeting Dakar. mu xamal ko carrément ne ñoom duñ def meeting Dakar parce mhm. amuñu xaalis moo tax duñ def meeting te alors que du loolu de question bi du affaire de am ñàkk xaalis wala am xaalis de question de ñàkk ay nit la amuñu xaalis nga ne amuñu non non non du loolu maanaam tey jii dañu am gàcc def campagne ci Dakar parce gis nañ population bi li ànd ak président Ousmane Sonko ñoom am nañ gàcc ne ñu ngi woote grand meeting foofu ca Dakar ziga meeting moo xam si stade la wala Mm. te pourtant ay ténor ñoo fa tase ay wala ñi fa tase. Mm-hmm. bu ñu woote woon fenn ci benn stade moo xam stade Amadou Barry wala feneen ak feneen duñ am ñetti nit léegi stratégie boobu foofu lañ bëgg a jaar ne amuñu xaalis waxuma Barthélemy Diaz waxuma waxuma waxuma euh, ay Thierno Bocoum de waxuma ay Pape Djibril Fall. Mm-hmm. Pape Djibril Fall Thierno Bocoum surtout Pape Djibril Fall da xam ne amuñu doole ci côté xaalis noonu. lu tax ñuy wax mais Bougane rek mën na leen financer. ñoom Bougane rek mën na financer meeting. am dette ne signifie pas que amoo xaalis des fois da ngay am xaalis bañ na doo fay det Bougane am na xaalis. ah bon wóor na la. Bougane non <laughs> affaire vraiment ñor. Bougane Bougane ci boppam Bougane mii naan sama mont bi rek mën naa jënd ay kër. Mm-hmm. te Bougane ñëpp xam nañ ne am na xaalis te moom sax da koy bàkku mhm. buñ ne inde trois keroog bi ñu fi wax si cinq cent vingt cinq millions yu président Ousmane Sonko dajale woon ci arena mhm. Bougane ne man ba may dajale ay millions boobu Ousmane Sonko mu ngi ca suuf sax si mhm. daggum suuf 2012 dajale naa fi cinq cent millions ainsi de te temps yi lu xewoon ci dëkk bi jamono yee passé muy góorgóor ne génne deux millions wala trois millions ne da xaalis boo xam ne su ko associé xaalisu Bougane mën nañ organiser meeting. kon nañoo lànk bañ a maanaam mbir mi du loolu de mooy am nañ xaalis buñu ñu organiser meeting mais problème bi mooy ñenn ci ñoom dañoo déggoowul hmm. non seulement amuñu public boo xam ne moom public boobu la ñu war a jaakaar pour wane ne dañu war def meeting. Hmm. mais aussi dafa am beneen angle. ban angle bi mooy lan ñoom ñi kenn kenn ci ñoom bëggul amul kóolute génne xaalisam di ko financer ci campagne bi xam noo tax. parce que ñoom ñépp ku nekk day dute xam na ne moom perdre na. Hmm. maanaam da ngay ku ne day bañ a génn yenn somme dañuy ko ci ba pare mu nul. d'accord parce que instant bi ban problème ban lan mooy seen problème mooy ndax dinaa doon député waxul ndax dinañ am majorité de. Mhm. Mm, ku ne danaan ndax dinaa doon député. parce que liñ gis si le terrain moo leen tiital ñoom ñëpp ba jamono ji ku nekk boppam la tal. Hmm. ba la preuve démb ci télé bi ku nekk programme boppam la doon joxe. bugaan programme bi mu doon joxe moom la concerne day mel ni yëfi boppam la. Mhm. bi muy expliqué day mel ni li mu expliqué yëfi boppam barte bi mu fi waxee ne assemblée nationale bu ñu amee majorité loi bu ñëw duñ voté duñ def dara da ngay gis soxna Anta Babacar comme si beneen angle muy wax ne dinañ def li dinañ def li maanaam dégguñu seen biir. Mm-hmm. parce que ku nekk sa propre intérêt moo la tax jóg. comprendre mm. kon donc tey jii léegi ñàkk programme ñàkk foo dem moo waral tey mun def déclaration bi mu def parce que dañu xam mooy côté Yoff la ñu waroon a def caravane. Mm-hmm. après euh, préfet xamal leen ne fii waa Pastef ñoo fiy def caravane. Mm-hmm. mais foofu rek nga war a jaar Ousmane Sonko bi muy dem Dakar jotagul woon moom Dakar la waroon tëjee. Mhm. stade bi mu dem géejawaay fa la waroon a tëjee mais li xawoon ci dëkk bi ak li ñu def waa Ndar moo tax Ousmane Sonko bàyyi ñoom bi waa bi ñëw naa côté yi moo doon dem ñoom changé itinéraire dem automatiquement jubal Dakar mhm. loolu xam la lay signifier ne man fu mu bëgg dem automatiquement nit ñaa ngi may xaar léegi ñoom seen plan yi ñu laloon pour jaar jaar foofu noonu ca Yoff léegi Ousmane Sonko war fa jaar ñoom amatuñ feneen fu ñu war a mën a dem. Hmm. parce que fépp fu ñuy dem day jël temps parce que dañ koy waxtaane ba pare aviser waa koñ bi yëpp ñi war a fay xaalis ñu fay leen pour ñu mën a génne yu ni mel. Hmm. donc donc automatiquement mën a choisir beneen lieu loo tax tey demuñu campagne. looloo waral Bart am temps bay bëgg a dee toog si salon xaw ma fu ko neex jóg taxaw ne day def discours. Hmm. te discours bu muy def du lenn lu maanaam di wax lu ñëwagul maanaam jël rôle Selbé Ndom nekk Selbé Ndom fi mu ne nii maanaam politique bi comme amatu xamatu ci dara léegi dafay bëgg naa ne ne voyant la. ne léegi baatu voyant la voyant la. lu ko ci waaw léegi si mbir moom si liggéey boobu la bëgg dugg. comme politique bi ah. doxul mu ngi dem boobu ba dara baaxul mën am dara te am na waaju tudd président Ousmane Sonko ku ñëw Sénégalais yi moom lañ àndal ñëpp moom lañ àndal mu nekk chef bi yor commande ni fu ko neexu lay bës léegi Barth ne man gis hmm. naa ne fii duma fi am dara baal ma déplacé wu ndànk dem dugg sama ruq di wax lu ñëwagul. léegi Bart mooy Selbé Ndom. Selbé Ndom la bu góor Selbé Ndom wala dafa bëgg a nekk saltige aussi loo tax mu tax fu mu taxaw naan di lim temps de mort Ousmane Sonko sacrifice yi mu war a def yoo xam ne tant de personnes war nañ ci génn àdduna waaye du fi amee fi ne mu ngi gis jamono ji. Hmm. bu fekkee da nga bëgg dara mën ngaa dem baat baat xoolal la fi mu baat day gis. day gisaane day gisaane boo demoon léegi mu jàppale la wax la sa borom kër nii la war a mel nee lay mel ak yu demee noonu fi mu ne mën ngaa profité parce que xëy na élection yi bu jàllee opportunité bu mel ni dootul am bu nekk bon boo neenoon noon boo nekkoon yow naa dem ci moom mu wax ma vraiment li ñëw suba yu ne mel c'est important ah doxoo ci mu ngi noonu mais mm. de toute façon ne Sénégal yi yëpp xam ne Barth fi mu ne nii am na liggéey loolu mooy liggéeyam dafa bëgg génn ci politique que dem na ba ci biir xam ne mbir mi doxul dem na ba ci biir lu mu làmb mu dëgër day provoqué muy provoqué lijjantiwuñu ko day ñëw bëgg def nit programme te nit mënoo ko def programme pendant vingt et un jours mënta ne di wax ba des fois doo xamante looy wax léegi ñàkk lu mu wax moo tax mu dem léegi di def gisaane. donc hmm. yéen seen tele bi après mën ngeen waxtaan ak moom pour ngeen wut rendez-vous ngeen dem. te mënuñoo bàyyi ak suñu télé ngeen wax ko ngeen laaj ko maanaam ngeen jël ko pour mu jàllale ay ay service am foofu laay hmm. waxee waxuma seen télé bi pour ngeen dem mu leen di jàppale yu hmm. maanaam yéen ngeen jël ko pour mu jàllale ay service am d'accord maanaam service yi muy def léegi pour koo xam ne vraiment danga nga bëgg xam ndax dañ laa liggéey wala liggéeyuñu da nga bëgg xam dar sa avenir ak yu mel ak daal mu dem bu fekkee jour nga nga bëgg xam ndax di nekk professionnel wala lu ni mel mën ngaa jël numéro nga dem foofu vraiment mu jàppale la ci loolu maanaam wax la sa avenir nan lay demee yu demee noonu mais en tant que télé gëm naa ne yéen soxla na leen pour mën a jàllale ay service am. ah ñàkkul ne dina leen contacter parce que boo seetloo sax lu weex la sol. loolu lépp dafay wane loolu yëpp day firndeel ne liggéey bu bees dafa dugg ci liggéey bu bees daal waaw liggéey bu bees boo xam ne daal bàyyi na politique bi na politique bàyyi na. mi ngi gisaan day waaw day loolay liggéeyam léegi de waaw ngeen ngeen ngeen boo amee ay ñoo xam ne bëgg nañ daal ku leen seetal ngeen boole leen ak Barth ne bi moom da ciy génn moom bàyyi na bàyyi na xam nga boo demee ba xamoo looy wax maanaam ñàkk programme ba yow xamoo looy wax démb ñuy xaar sa programme nga ne Sénégal Sénégal loo ci wax amul lu mu ci wax ne acronyme la ko def. maanaam de di wane di wane formation développement personnel xam ne loolu jàllul ñun ñi waaye di loolu nga jóge foofu tey nga ñëw ne doo génn moom. Mhm. keroog yaa ngi woon ca balcon ba léegi fi mu ne balcon ba doyatul yaa ngi sa salon ba taxaw ne da ngay wax ñu yaakaar ne baat lu ne ngay wax ndekete yoo baat day prédire léegi day voyant fi mu ne wax na lu ñëwagul ay sacrifice yu war am waa léegi ñaan yi nañ wax ñaan yi sarax beeg yooyu ñu def ko. sacrifice nekk mu wax ñu sarax bi ñu ñu génn ko sacrifice yi comme Sonko daa def ay sacrifice nañu wax sarax si ñu gaaw gérer ko ndeysaan ah, gisaane mu mag la de man de dama jombi fi mu toll nii tontu Fall ana nan nga jàngatee ay kàddu Barthélémy Dias yi nga xam ni euh, daal dina ko génne dama war a rentré dama am lu war a mm-hmm. wax fii génn fii mm-hmm. te tegu ko ci dëgg il faut ma leeral mu leer loo bëgg a leeral noonu ci affaire u Bougane mm. bi ñu ko jàppee flagrant délit mm-hmm. député topp ko ñaari ñaari député yu pur yi bi ñu weqee femme bi ci biir kaso dina jàpp dañu yóbbu kaso. mais père loolu da ngay lever da ngay lever immunité non da ngay lever immunité bi. non monsieur Dieng bàyyi ko mu bàyyi ko mu développé bàyyi ko mu développé oui. Khalifa Sall. oui kaso lañ ko génnee yow du ko lever lever immunité parlementaire. immunité bi. Khalifa Sall. Mhm. bi muy nekk député kaso la ne. Mhm. dama dégg. oui. ça dépend ci fee yi. lii di crime lii di franc délit. crime sax moo gën a yomb ci député ñu mën la xaar. mais flagrant délit dañ lay arrêté ba pare doo ko dindi sa immunité parlementaire. Mhm. Ablaye Wade. oui saa bu 88 avant résultat yi génn jàpp nañ ko député euh, présidentiel boo xoolee élection yi topp. Mhm. bi ñuy rey met Babacar Seye avant résultat yi génn jàpp nañ leen ça dépend ci fee yi. Mhm. moo tax mooy wax ñi may dégg man xam na li may wax. je n'ai jamais tâtonné dans l'obscurité jamais te li may wax da am fu ko def xam-xam mooy yàgg a fekk tey jàpp. quelle est la différence entre. ci oriental micro bi ci yow. quelle est la différence entre. présidentiel dépp euh, candidat présidentiel résultat yi génnuñu jàpp la Abdoulaye Wade jàpp nañ ko ñaari yoon te résultat génnagul Khalifa Sall bi ñu koy jàpp dañ ko nekk ci kaso bi mu nekk député ñu bañ ko génne ba pare ñu ñu parlementaire bàyyi ko fa député la Fra Gana Deli amu ci loolu. Fra Gana Deli lay jugé il faut ñu distinguer ñoom ils sont pas des députés. Hmm. Bougane du député. candidat la bokkul ak euh, kii comment il s'appelle. bokkul euh, ak Dia bokkul ak kii comment il s'appelle. Fall. Hmm. Abbas député la ba tey. Hmm. Bougane kii député la ba mais Bougane du député kee sax nekku ci liste bi. te ñooñu. lii ma wax daa am fu ma ko teg. man ci loolu lay liggéey. te nag ba ma ci dara liggéey ma def fukki ak juróom xam naan xam naa les faits de délinquance ak les actes de délinquance. droit balaa génn dañuy apprécier d' abord les délin les faits de délinquance et les actes de délinquance. Mhm. te doo ko mën a génne droit. mun a apprécier droit mukk te fait bi amul. Mhm. il faut intention bi am wala fait bi am wala action yi am nga mën a apprécier droit droit du n'existe pas sans loolu amul. Mhm. yaa may dégg. feeg loolu amul fait yi amul appréciation yi amul droit mënut a mënut a exister de article tel article tel parce que fait bi moo am ba pare. ñu basé ko ci ñu fondé ko ci tiir benn article ne article moo wax ca loola. d'accord gis nga li ñu def démb. Hmm. buñ leen jàppoon dañ leen jàpp buñ leen jàpp leen war a jàpp parce que ci association de malfaiteurs lañ leen boole. Hmm. danoo jënd arme ku jënd arme kii nee na maa jënd arme yi kooku nekkatul complice nekkatul euh, nu euh, témoin c'est un acteur. d'accord yaa ma bien fondé na. Hmm. comme moo ko jënd rek. moom la kenn moo nekk mën mën a nekk complice ñi ko gisante wuñu ko ku mel ni euh, comment il s'appelle ku mel ni Diouf. Mm-hmm. Assane Diouf mën a nekk complice. Mm-hmm. ku mel ni Bougane mën a nekk complice. Mm-hmm. mais ki ko jënd c'est un principal. c'est un délinquant. parce que droit qui dévie l'état qui dévie droit c'est un délinquant droit moo génn état moo génn ni il est formellement interdit. yaa ma dégg. nga ne nga défier ko jëm jënd. dañuy toog naan la. da ngay ba nga nekk député ñu ko indi parlement daal ma jàpp ci del kooku kii la. du crime flagrant délit la il a fait un dañ ko jàpp immédiatement. par ko war a jàpp immédiatement. demee su ma demee au bureau. Mhm. je vais appeler un avocat wala un juge. Mhm. jox la ko téléphone man li wax du dañ. Mhm. am na solo bu baax day am luy xam ne su amee daa am lu muy indi mais jox naa exemple fii. kii bi Khalifa Sall mu nekkul kaso. bi mu nekk député fay ko salaire dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko yóbbu ko dañ ko yóbbu kaso awa ah, muy muy muy résultat yi génn. Mhm. Ablaye Wade mii def na ñaari yoon présidentiel. Mhm. awa say génn yóbbu nañ ko kaso est-ce que amoon na immunité. Mhm. ça dépend ci lañ lay yóbboo kaso. 16 février fekk nañ ko fii bi bi bi ñu reyee fii kii Ablaye demul kaso ci ci élection ya am déet candidat 16 février 2000 kii Ablaye Wade dem na kaso parce que dañu reen ay ay ay ay ay policiers est ce dañoo xaar naan immunité la am balaay koo rey ñu dem élection ba élection yi passe da ko yóbbu ah non njaay Sadibou Ndiaye commissaire Sadibou Ndiaye ba problème ba amee nu ñu def jàppuñu gars yi c'est-à-dire que seul du kii mayu la neex def nga nekk député ni candidat nga loola neex nga def ba keroog muy jeex non je dis non mille fois non ku jàpp booy bàyyi ko. de photo sécurité jàngoo sécurité dama ni le commissaire son rôle c'est de l'intégrité de la population d'abord oui. des personnes et des biens yaa may dégg en passant par le procureur jusqu'au juge mais bu leen procureur déposé woon démb benn problème du am mhm. mais ne cherche pas à des circonstances atténuantes la kil Barth moo la gën a xam ne il est coupable te fàttalikul hmm. sursis la amoon bi mu reyee Ndiaga Diouf at lañ ko tëwoon quatre ans six mois ferme avec sursis amoon na sursis sursis boobu mën naa jeex mais ci fee bi bu fekkee ne ka lañ ko tëjee jeexul. ba mu am juróomi at su defaatee toj bi day da koy booleeg loolu te jëndaat nay arme nag na droit wax boppam rek. man daal na droit wax boppam. jëndaat nay arme te bu ñu la dóoree ni nii la da ngaa jënd ay da sàcc weeru jàmbur exemple. ñu dóor la ci sursis nga toogaan nga sàccaat yeneen weer lañ la dóoran ak lañ cay dool lañ koy boole mhm. dañuy doublé peine bi la nga juróomi weer la waxoon la ko ak juróomi fukki weer ngay tëdd bu leen neexee bu leen neex nga tëj juróom ñaari bu leen neexee ci la mm. mm. mm. na manqué parce que droit ngay waxtu waxoot sécurité y a une ko tëj ko téye fi cinquante deux ci këram lu ñu waxoon lu ñu woon parce que bu génnee dëkk bi day tàkk am na amul. Bart dem dañ ko téye këram lu ñu wax lu police wax parce que bu génnee dëkk bi day tàkk am na amul. Mhm. sécurité dafa ëpp droit droit sécurité dafa mhm. de sécurité personne et des biens dafa ëpp doole droit. Mhm. démb droit amul dañ ko ne doo génn sa kër ndax boo génnee problème mën na am. am déet droit ko téye sonk dañ ko 53 jours lañ ko téye këram ne ko doo génn parce que génne droit mën na am. bu ñu confondre sécurité. sécurité man na nekk ci dëgg droit mën na ci dëkk di dëgg waaye li ñuy appliquer ci sécurité ci peine day day néew. parce que boo ko doxalee sécurité rek bu droit ñëw ak yow ndax bu génnee lii mën naa am. su hmm. jëndee arme mën nay rey nit même bu ko reyul ma kenn ma ko rey kenn ma ci dagg tànk ki jënd arme il est responsable. Hmm. que bi koy jënd amul droit jënd ko ba droit moo ko tere ni bu kenn jënd bu ko kenn yor nga jënd ko yor ko da nga défi te ku defee état t'es un délinquant foofu sécurité du la. mon fils loolu laal bëggoon rek leer la rek. waaw eh, mais nag leer na nañ kay. Mhm. am na solo bu baax tonton Fala ci ma bàyyi la nga tàggatoo comme que mi ngi bëgg a guddi. Ah, waaw sonn na nag. waaw ñu bàyyi la nga noppalu parce que yaa ngi ci terrain bi waaw. <laughs> non non non non ah, non booy dama sonn. non non daa sonn daa sonn bàyyi ko mu dem noppalu. waaw waaw dëgg la dëgg la pour wax dëgg. dëgg la euh, huit heures laa sama kër. Mhm. huit mhm. bi ngeen woo maa ngi permanence. Mhm. te gars yi ñëw nañu nii fi mu ne nii. Mhm. ba ñoo ba ñoo dem dañuy évaluer ba pare. ndax ñun bokkuñ ci ñi nga xam ni amuñu ñetti nit. boo xoolee tey ñun amul benn commune. boo xam demuñu fa. amul benn département boo xam demuñu fa. benn région boo xam demuñu fa. dama yaakaar ne dimanche heure bi vous serez là. garde vos portables. incha allah te déglu. incha allah dama ne euh, na xam ni. lii tàkk tàkk na pare. waaye nag ki di ngeen ma ko may. ayca may nañ la ko fii ñu toll di ngeen ma ko may moon ko gars yi. waaw wan leen ko kii nag. mooy waaj te yaakaar nañ sénégalais yi. yi may waxal. dañ ma déglu bu baax. tourné ko ci écran bi bi bi waaw. li li may waxal. dañ ma déglu bu baax nag duuf. déglu leen ko waxal sénégalais ñu déglu ma. waaw déglu leen wuy leen peer. nañu wuy peer. lu am solo mi ngi nii. gis nga bulletin bii. am na lu muy réglé. bulletin de confirmation la. il faut que wati ñu war mu nekk cinquante quatre virgule vingt huit vingt huit pour cent. kii moo ko war a régler. mun joxe bopp nag rucce au làmmiñ. Mhm. moo tax mooy woo Sénégalais yi. am na mouvement yoo xam ne ay association yoo xam ni mille neuf cent soixante avant mille neuf cent soixante cinquante huit ba tey ñoo fi nekk. Mhm. muy ñu ñu ànd ak PS. ñu ànd ak PDS ak ñu ànd ak Macky Sall. consort googu bëgguñu nit ñi bouger mais bulletin bi moo leen jàll képp koo xam ne. sénégalais bu normal la ab bootin xasuma kenn nag. Mhm. ku bëgg réew mi changé suñu programme bi ñu yor ñun amuñu programme mu euh, nu mu tudd législatif. mais am nañu programme état ni war a yor réew mi. suñu programme boobu mooy suñu huit pôles yi d' abord. Mhm. bala nga ne naam ne fa. lañ koy def def ko nag da ngay ñu dimbali jox ñu xam naa sax di ngeen ko def. Mhm. ndax yéen ñu ko gën a bëgg. yéen ñu bëgg gën bu bëgg changement intégral changement bi nag. boo xoolee doxagut ndax am na yu bari mënuñu ko. fii la ñëw bëgg démb bëgg a wàññi haut conseil ak conseil de la république ñun ñu fi dal. ba mhm. bàyyi ko fa. ñëw indi fii quatre cent quatre cent cinquante milliards bëgg koo dugal di ci fay salaire ñun doon ko jël. Mhm. dégg ngeen jaas wax na fi bëgg démb nii bis ñoom bu ñu gañee élection yi. kenn du fay ko salaire kenn dootu lekk kenn du am sécurité kenn rekku naan loolu sax mënu ko. Mhm. mais wax ju ñaaw la. fii ngeen koy takk dimanche. bee passé da ngeen wax. julli dem wote ñëw dox. Mhm. bii nag dañuy ñaan ngeen teel a jóg ñiy dem marché jigéen ñi dem marché jigéen ñu actif ñu yëpp xam ne jigéen ñoo gën a am capacité ak xale yi. Mhm. nañu teel a jóg dem marché bala ñoo dem marché ñu dem wote ba pare dem marché. Mhm. ndax lii jaat la. jaat bu doy war la. jaamu yàlla la. kuy changé ku bëgg sa réew bëgg réew mi changé ak li fi nekkoon jaamu yàlla la. te maa ngi woo Sénégal yi nag. ak fu mu mën a bokk. Macky Sall sax Abdoulaye Wade maa ngi leen Mm-hmm. ak ki ba booy bi la raada gargot bi nekk fële ca doyen di woote téléphone démb di joxe ay exemple di joxe ay ay kii muy muy Karim Wade. Mm-hmm. maa ngi koy woo mu sans mu corriger sa ligne de mire la Macky Sall ki corrige demee mën na bind lettre. ni jàppale leen Sonko. Mm-hmm. dama ni na ko def bëggee réew mi. yaakaar na nag kun man day ku maan la fa leen ma. te du wote. man duma ko woteel. ñàkk fayda mënut a paas ngeen baal ma ci wax ji. nga nekk bitim réew. nekk sa candidat ñi ñëw ci réew mi ñi ma woo wote ba ma lay woteel. Mhm. waaye li fàq démb ak bëkk démb. oui jóge ci ñoom. Mhm. ñëw ci ñun. yaakaar naa ni bal tàkk na pare. Mhm. maa ngi ñaan Sénégalais daal ñu muñ jàpp nu toog déglu nu suñu defee lu nu war a def. ngeen jël nu fi. dégg man dama leen défier rek damay def défier Sénégal yépp su fekkee ne ñu li ñuy wax mënuñu ko jëlee leen nu fi. mu gaaw a gaaw na mais nag da ngeen ñu jox luñ ko defee une mission égale les vous nous avez donné une mission il faut nous donner les moyens de faire notre mission. Mhm. wasalaam. ayca am na solo bu baax euh, tonton Fall Mao merci aussi euh, ci disponibilité bi parce que yaa ngi woon ci campagne sonn loolu ñu déplacé la nga daal di ñëw pour teebali. ayca <laughs> tonton Fall jëf jërëjëf jëf Fall. am na solo bu baax Cheikh Tidiane dañu euh, daal di yégale suñu waxtaan. ak dama yàlla yégale sama waxtaan ak yow. ñu daal di dem léegi-léegi wax naa la ci mbaalu mbirum mbirum sacrifice bi am na lu am solo loo ko ci wax ba ni ah. sax euh, moom Barthélémy Dias euh, moom la ñu tëkkalee fi ñu toll nii ak ah,